Heavy Mess.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 réew moo xam ne it noxor njaay ñu teg loxo drogue te drogue ba nag du doon wa waya waya héroïne ko cocaïne. mu daal je suis peur daal. te it bu ñu koy teg loxo moom it bi ci ay milliards lay toll. ci réew mu am pétrole am gaz. fi mu ne nag mbaa mu ñoo wax ne Sénégal dafa mujjee doon plaque tournante bi nga xam ne jaaykatu drogue yeeg trafiquant de faux billets yi ñoo koy wulee ñaay. dëgg du romb nopp. inondé nañu réew mi ak drogue ak i faux ma ne gannaaw ñaari milliards faux billets yi ñu tegoon loxo le 3 bi weesu waa brigade de recherche. marché bu Kër Massar tegaat nañu loxo lu toll ci foo biyee loo xam ne boo ko doon xayma toll na ci ñetti milliards <laughs> moo taxit juróom-benni foo mën a yor yooyu ñoom ñépp teg nañu leen loxo sama gaa ñi dañoo xarañ de li doy war na ci trafiquant de faux billets yooyu nee nañu kenn ki ab enseignant la ma kii de xaw ma lu muy wax ay élèves am. gaa yi Aziz Kanji ñoo def ni mel gannaaw investissement. événement yu bari yu ñu doon def doon ko def nag ci guddi ak bëccëg sama gars yi dañoo xarañ li tax nag ba ñu teg leen loxo nee ñu lépp mu ngi tàmbalee ci benn membre réseau bi ndax membre réso boobu da doon ut ku leen laabeel xaalis bi ba set ngir ñu mën koo jëfandikoo bi loolu amee nag ci la waa brigade de recherche bu Kër Massar daal dil bi mujjee leen a infiltré ma bamtuwaat ko sama gars yi dañoo xarañ chauffeuru clando bi di wuyoo ci turu MF ak enseignant bi di wuyoo ci turu AT bi nga xam ne sax ne ñu ndakaaru njaay la juddoo ak yeneen ñaari membre yi ñoo jóge ca fournisseur ya nekk ca Thiès gannaaw bi ñu jëlee xaalis yu bon boobu nag doon ko dugal bi ñu ñëwee ba ndakaaru ca Kër dinañu leen tege loxo li tax ñu teg leen loxo nag kay bi ñu indee xaalis bi dañoo woo aabe dal koy chargé ngir mu utal leen ca ndakaaru njaay ku leen mën a laabeel xaalis bi waaye yëf yi mu jul baax ci ñoom de ndax le 15 bi weesu la ñu jóge ca ngeexoox dal di si ndakaaru njaay bi ñu egsee ba Kër Masar foofa la ñu leen tege loxo bi ñu leen jàppee nag la l'enquête bi dal di continuer l'enquête bi dal di feeñal ni fournisseur ya ñanga nga ca ci la gars yi defee descente ca Thiès teg loxo ñaari fournisseurs yi ma ne gars yi dañoo xereñ laa wax moo tax mane ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax newoon naa leen réew mi feebaru sàcc fépp lay wulee ñaay kii ab infirmier la liggéey ci benn hôpital bu mag bu nekk ca Géejawaay waaye moom li ñu tuumal jéggi na dayo de ndax dañu ko tuumal ni dafa sàcc ab chèque boo xam ni ab hôpital bu nekk ca Mbuur ñoo ko moom doon ci jéem a retiré téeméeri million pëpëpëlaw infirmière bi ñu jot ne moo def yëf yi nee ñu mi ngi sàkkee sec bi ci tantam tantam boobu mu sàkkee sec bi nee ñu moo doonoon comptable hôpital boobu nekkoon ca Mbuur infirmière bi mu sàkkee sec bi dafa dem gisi beesal ngir mu mën a récupérer xaalis bi ci compte bi te borom compte bi du ko yee ci ab banque. ci dof pilis loolu amee na ci la ñu informé brigade de bu Kër Massar ne leen beesal yor na sec bi ñu sàcc te ñu ko doon wër naka noonu ci la ñu defee descente ca banque bu nekk ca Kër Massar ndax foofu la ko beesal bëggoon a bi ñu ñëwee daal di teg dil beesal benn élément brigade de bi daal di camouflé wu ne mooy d'agence bi. ci la ko beesal dal di woowee ci ruq dal di conclure ak moom dil ne ko dafa bëgg a retirer chèque boo xam ni bëgg na koo retirer te du am trace te bu ko retiré dana ko ci compal quarante millions. eh. je sais pas bien comprendre. naka noonu ci la ko waa ji diree. desal bi mu yaakaaree ne dilam réussir na. ci la woo infirmière bi. bi ñu demee ba koy retiré taxaw ci gise bi. la leen élément brigade de recherche bu Kër Masar fekk. nguufaan leen daal di leen yóbbu. ne leen sama gars yi dañoo xereñ de. réew moo xam ne sàcc dorog foo bi. mu doon seen xibaaru bës dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz.